sérieux man sama xel du cere moo ci nekk ko hii bul wax. Ah. bu tam bi rek. Ah. maa nar a togg bii cere. hee hmm. ba muy wut sama yéen. kër yu nekkati yow yooyu yëpp yaa ngi koy lijjanti. kii la rek. ah def farata. ci tunnel la mën ngay may njëkk bi. oui yow laa bëgg kii quoi. mën nga bëgg la. <laughs> tax ngay yuuxu sama tur ba fu waaye tool di dégg nijaay nijaay nijaay nijaay laal nga xam nijaay dinaa la yuuxu sa ponkal mi ngi fi indi xaw ma ponkal la xaw ma barigo la ñëw fi naan damaa nopp kii xool na boppam kii maa moom est-ce que ay saayis la ko rek kii xanaa bu ma yéegee damay dee

muscade. waaw yow comme li yow jërëjëf moo tax nga may xoj du metti sa yoon nekk ci. yow nii ngay proposé kon. Eh, ak lan sax. ñi xam am bopp xar. Eh, bopp xar baaxul day forox. te am yéel. yéel saa dinaa ko def. nee ne ko wëri ji yow. yow di nga wëri ji yéel. Mm, mm, mm. ah, dégg nga baax na. voilà léegi loolu yëpp nag mami moo koy togg. waaw waaw man kay incha allah yow su ma jàmm mooy tey ma taxaw. gis nga pour tam xarit bi desee trois jours dang duma ko def. nga ni. Ah, nga ah, ah, ma may mami yow bu tam xarit bi desee trois jours mu toggal ma boobu cere. dégg nga bu baax li ma la wax. dégg nga bu baax. waaw. Hmm. maa bàyyi nag nga xalaat ci ba suba bonne nuit. salsabikum xarit nas nekk am tëru walla wax mami bëgg naa ñu waxtaan tey nag <laughs> gaa kii fii la yàlla dogalee seen xamante yéen ñaar dara leerul ni bu doonee sa jëkk mun naa defal sa àdduna tey ëllëg nijaay bëgguma ko wala yow day góom mami gis nga man yi ngay wax nii jaaxoon ma parce sa yaay nga xam ne sa yaay keroog ban koy may sa papa mu bañ dem na ba ut ay médicament teg ko ci taabul bi ne day naan xaru dee waaye du seeg sa papa. ban ko mayee sa papa benn weer ñaari weer juróom benn weer at ak genn wàll seen papa bu ne tër dem vacance ñaari fan sa yaay commencé jooy. naan daan nangu sa papa na ñëw loolu bu njëkk ba la du léegi bëgguma ko. naan di imimé wu ah comme lion mi lan moo nekk si moom. góor la. man damaa woon ni góor la yow dalaa leen ni góor la yow. yow man am na loo xun lu ne fànn kay. kenn du ko jeex. xoolal li xool ah, boo xoolee ki xam ne day dib si. karawam gi. karaw góor yàlla la nooyul. kii xool façon ngooñ nga naan ma karamu góor xool façon xool nijaay yow lijjanti lii moo eh, may ma rek eh, bàyyi ma ma décortiquer kii kii buy sang ba woo doo sarbet nga gis kii saara mbaa nga xat bay bëgg a dee te mooy satisfaction yi de satis bu xatee de moo koy yëg comme yow lay yow lay faral di naan ah bëgguma ko de comme ak moom nag bu lay boo nga xam kii nii ay waxam kenn validé wu man maay kilifa kër gi kàddu bu benn la te barki ak Gallo laay bulum yëmbal di ko doon jëkkëram ah bon naan tànn <coughs> ah, kii par can bi ay waay di da ñëwagul rek leen loolu ma jox can bi hmm. Hmm. Hmm. Ndiaye bàyyi commande kilim bii da nga lijjanti lii bàyyi sayf ñàkk fayda yi ngay def lijjanti lii. bàyyi li ngay def. ah bu ma joxee cangi moom bu sey see man maa koy kii jébale. mun naa ko jébale sama bopp. Hmm, dama maa joxe cangi. waaw. asu asu la moo tax amoo cent vingt virgule lu xew eh, asu yow xam xam nga lu xew asu ma mënumaa wër sama géer yëpp awma dara ma ñëw nu ma santeewul ma ñëw jàpp sama chef fi nga ñëw di yokk tele bi yow yow xanaa mënuma may jàmm yow ah. man damaa bokkul ci kër gi aw ma droit dugg ci salon bi xool li ma sentir ak li ma neex ma seetaan ko du dëgg de Sina Waly Seck mi def ko estatu sama. eh eh eh, eh eh eh maa maa wàññi soo ba du dégg dara. ngay am image di gis ay nit yi def ay démonstration di def si expression corporelle te doo déglu musique asuma la gën a nëb. asuma la gën a yabaatee. asu yow yow yaa bëgg affaire de associé di toppeere nit di def nit lu la neex yow góor nga waroon a doon. doon bandi ñu lay xooli inu xam nga laa bëgg nga ne ñoo kat jël sa gat gi dem toog fee. réew nga ba xamoo lay nduru. di jël sa ween yi xeesal ko ba mu xees becc di si di si affronté xale yu góor yi di lekk seen xaalis waaye baax na boo fi ëmbalee doomu jàmm di nga ko ngeen dangaa mën wax ju bon ak wax ju ñaaw yaa yow yaa def lu bon yaa ma gis yaa ma tëg ba yaa def lu bon yaa def lu bon may ma jàmm daal te làmmiñu mbokk moo gën a yës da lay semmal léegi nga dee te fexal ba bu maa lay jàpp sa làmmiñ bi bënd ko di di ma fàtte xool ay waay mais ni jeekati film ex bu ma bàyyi fan lay jàpp tamit ci àdduna yaay sama tataanak dama laa bëgg pii te bëggul kaas sunu kër non sunu kër yow mënoo fee am kaas sax nag sama nijaay eh tata nag laal nga laalaake de <laughs> sama nijaay daa neex a nopp de sama numéro nijaay bu ma la ko lijjantilee 300000 eh, mënuma koo am waaye sa numéro dong tamit loolu mënul nekk dëgg yow xam nga ni xaalis sama yëf la. man maa bëgg xaalis sama nijaay de tata xamu wax la lu gën a neex ci moom bu yeewoo fajar ba woddoo sa tamit di sangu ji ma nekkoon jarbaatam dama koy daw songu ndax dënn bi rek comme paracétamol da naan foo <laughs> wax dara maa ngi nii di ñëw yegg naa presque sa buntu kër may ma mucc. waaw du kaa. waaw waaw kam dëgg la dëgg la sama nijaay daa jontal te boo nag. du kupp du colo dox ko tu guddi. sama nijaay dem maa ngi lijjanti nànk numéro am jox nga jox ma 300 mille ma dund ci damay wax téléphone. et eh, tata maa ngi lay ci kanam. as ak ak diggante ak yàlla man mel naa nii si dëkk bi yow lii nga wax. may ma euh. li ma waxoon sànq. ñëwaat na yow nan laay waxee téléphone nga naa ma coupé. foo teg loolu. as bu ma topp man maa bëgg ambiance. di wax yoo xam du dëgg di créer ay situation man maa bëgg ay affaire di sosal nit di tuumaal nit ki pour ñu ne koy xoolee man yooyu sama yëf la. noonu laa mel man bul ma jàppee samay wax daal man lu may wax dëgg bëriwul parce que man ku xool yow ko la xool xam ne risque du doole di yaa ngi ku mu def day metti eh? jigéen day gaaw a ree ndax jaal day béyte te poosewul. ah te ku ne xam na ne salaat ak ñax du benn ku ko wedd bi ne garal. ma ne la nag. Eh? ñànk tàng fu ma làqatu di jëw soos ko ko togg sori. nga ne lan sama nijaay gis sa jantal bii. yéene ko jéeg bu ndaw boobu dootoo ko defat ci àdduna. xam nga lan laa bëgg. da lay bonbon. na ma ñol-ñol. di la tong-tong. loolu laa bëgg. nga ni man instant yii nii man maa nam di bëre. dégg naa combat boo xamante ni de yàlla na am sponsor bu ma ci jàppale. dama nga woo ko jox ko sama numéro. bu ma fay bu lu xaar loolu. laa génn lu tax kër gi. Ah. chien méchant bi fi nekk. kon comme lion. xaw ma comme lion xaw yooyu yaay génn dem bu gëm li yoo ne ku la génne nga dugg sama nijaay moom a génne kër gi lu ma si góobee gar ko ban. man waaw da ngay dem astu de. musuma dem barki Seex Galolaay da ngay dem ba lu ñu mën. waaw soit nga génne ma kër gi. nekk waaw yéegal. yéegal maa lay boot. yéegal yéegal mm. yéegal. ah. as as doxal doxal doxal doxal kaay kaay kaay kaay. waaw mën kay mën. ay day la ay as bu yàlla dogalee li nga ma dig nga def ko dinaa commencé waat du ma gën a def yeey ana ko mu nekk waaye maa la njëkk si meeku ma si meeku si meekoo yaram bee tàng fekk sama yaram tàng na bu fecc bu yàgg bi fecc ay temps nga ne xoolal fecc lii harmonie la dama doon fecc di sentir énergie waaye léegi yooyu amatul fecc dama doon sentir ah waaw yii yëpp ay effort la dana dana feeñal ni yow sa ndigg bi ñu marche waaw kii moom fecc càgg lay fecc fecc mépp xale jigéen la koy dox di yow lan la. neen duma dem fi mu yónni neen duma génn. yow comme yow yow lii lan la ah. eh tu fi. communion eh xam nga lan la yow communion yow moomoo nit ñi da ngay bëgg a yabaata laa la wax man bu ma lay jël pour la si kër gi pour nga servir ma samay njaboot moo tax ma lay fay sama xaalis. waaye waxuma la pour nga surveiller man di ma torturer amatuma droit yónni sama njaboot ni ko génn kër gi man bu ma bëggee génn dama lay tàgg si kii ah ma xalaat fekk la ngay taxawaalu di bëri ay combat yow mënoo daan génn di taxawaalu rek ma jël la ne la kaay nga doon noogul baadoo la nga xamoo yey la xam nga lan la contrat bi laay arrêté une bonne fois pour toutes. fen comme bu ma wax ak man ma wax la contrat bi lu mu wax. Ah. contrat bi nee na six mois la def ci kër gi te man may lu ma neex mooy am ci kër gi. loolu da ngay waxoon waxu dëgg maa ma la da nga. day ne année la contrat dindi lépp ndax yow yabaate nga man mënu ma di sama njaboot mënatuma am su ñoom benn intimité te yóbbu na nga fi ci xale yi yóbbu nga sama fii di man amatuma jàmm guddi amatuma jàmm da génn.